daañu ko def. yaa ngi woon ci dialogue bi yaa ngi woon ci dialogue bi. ce qui est important aussi c'est que man je prends des positions xooluma samay intérêt personnel je regarde le pays. ah d'accord donc y compris lii nga xam ni moom la ñuy waxtaan tey sur la démocratie. Mhm. démocratie nag dafa naa fu ñu tolloo aujourd'hui dafa am ay corps yu ñu koy ay baromètres fu ñu koy mesurer. Mhm. y la justice comme le dit monsieur Sy. kon ndax la justice elle est vraiment indépendante elle est autonome ou bien mi ngi def euh, c'est une œuvre humaine ah mënul nekk euh, quelque chose de parfait uh-huh. di xool aussi assemblée nationale uh-huh. xam ni fa nii ñuy loi yi di jël élection libre am yooyu yëpp ñu koy xool tey nag moom ñu ngi am situation boo xam ne le 20 juillet bi di saytu ñaari situation yoo xam ne man am naa ci lu bëri la mu ci yox yaa ngi naan la situation des deux cas war a changer le code de procédure pénale war a voir aussi comment faire de sorte que certaines personnes euh, mën a bokk ci élection yi ñu rattraper leen wala récupérer leen ah. man ci dialogue national bi ci suis un républicain man j'ai toujours dit ak ñi ma àndal dans la coalition And Gueuli mu ngi tuddee la majorité silencieuse yaa ngi koy dégg mais je vous expliquerai pourquoi dañoo considérer nii ku bëgg a jiite réew mi il faut que mu wane un comportement républicain dialogue national bi du président APR moo ko woote du président Benno Bokk Yaakaar moo ko woote c'est l'institution la pré le président de la République moo woote dialogue ñu ñëw déglu. ah demoon nga ca. oui l'ouverture le 31 mai j'étais sur place. déggoo kenn demee si critique sur le plan national moi je suis un républicain ku bëggul dem yaa xam. waaw waaw yow que. oui oui loolu quand je ne défie pas l'institution même su fekkee xam ngeen ne maa moom am na nañu problème mais dama dem ànd ak samay idée ñu toog jour boobu ñu naan TDR yi lii lan la ñuy war a discuter ñu bëri joxe idée si TDR yi xamoon nga nii au Sénégal dañ ne woon kenn du waxtaan si affaire troisième mandat. foofu. la veille j'ai entendu hein. je peux citer des je n'ai pas de problème à ce niveau. muy Benoît Sambou Thérèse Faye génn les journaux sont là. Uh-huh. Euh, demain on ne parlera pas de ça. j'ai dit le 12 mai c'était ou dañ ko wax oralement. si journal ñoom dañoo toog def. Euh, interview ñu génne ko si à la une ñu ni kenn dafa wax affaire troisième mandat. Uh-huh. je me suis dit mais man li may wax le 12 mai à la place de l'obélisque non troisième mandat. Uh-huh. dinaa ñëw euh, nu mu tudd devant le président la République qui préside wax ko li ma ci xalaat moo tax je suis parti mais dama dugg rek ñu ni président jël couper l'herbe sous les pieds à tout le monde ne ci la bokk vous l'avez suivi il y a pas de sujet tabou ah donc euh, en considération